ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci yaat IYAT TV ñu laat leen ci xibaar ñu wax ci lu ñeel kii di euh, Bassirou Diomaye Faye moom nag ginnaaw ba nga xam ne yoon daat na koy tegoon loxo ni ki fan yëpp mu nekkoon ci loxol yoon euh, moom nag ni ki tey jii ki nga xam ne. Euh, moom moo di euh, maître Khoureyssi Ba moom nag daal dina xamle ne dogal ba nga xam ne euh, kii di juge bi daal na koy jël moom kat moom moo di kii di Bassirou Diomaye fay ñu daal di koy placer garde à ñu daal di koy placer mandat de dépôt ba keroog ñuy jublu ci ay mbiram. ndaxte kat moom juge bi bokk na ci nga xamante ne maître Khoureyssi Ba xam leen ne kat moom la juge bi daal di souligner ne moom lañ koy toppee. moom moo di euh, diffamation waaye itam ak euh, yëkkati ay kàddu yoo xam ne euh, def ko teg ci li nga xamante ne si ne moom moo di justice ak magistrat yi ay wax yu tegginiwut yoo xam ne moom la justice bi daal di xam la nekkat moom la kii di Bassirou Diomaye Faye daal di yëkkati loolu nag nekk loo xam ne Euh, lu ruslu la ci euh, yoonu Sénégal ni muy doxee ñu bëree bëri daal nañuy xamle ne euh, loolu kat lu ruslu la ci yoonu Sénégal ni muy doxee waaye itam ak dellu ginnaaw ndaxte kii di Bassirou Diomaye fay li nga xamante ne seeni wax na ko bër na ñoo xam ne daal dinañuy wax ay kàdd yu gën a yooyu waaye itam ay kàdd yoo xamante ne si moo gën a pur yooyu yoo xam ne heure bi waroon naa fekk yoon kat daal leen di àtte waaye itam heure bi waroon leen fekk ci kanamu yoon ñuy euh, layoo noonu nag nekk noo xam ne euh, ñu bëri bëri daal nañ koy constaté daal di ci duut baaraam di xamle ne ni nga xam si ne euh, noonu la justice bi tëddee nga xamante ne saa yoo xam si ne ab dossier jug na daal di concerné ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef dañ ciy doxalee benn fast track bu rëy rëy boo xam ne day jaaxal sénégalais yi waaye itam ak profito boo xam ne procédure yi dañ koy gaawal lool lool nag nekk loo xam ne Euh, ñu bëree bari ci sénégalais yi ñu ngi koy euh, naqarlu ci jamono yi nga xam ne euh, lii di yoon noonu lay faral di doxee ci dossiers yi nga xam ne ñoom ñoo concerné ñii di opposition bi rawatina ñii di waa Pastef ci yooyu jamono bëri na ñoo xam ne ñi ngi ci pouvoir bi di wax ay saaga waaye itam di menacer nit ñi waaye itam saa yoo xam ne justice daal di génne décision buñ ci àndut dañuy daal di défier li nga xam ne. Euh, moom moo di justice bi ak euh, magistrat yi waaye itam euh, di wax ay kàddu violent di wax kat ne diw dañ ko war a ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dara fekku leen ci loolu nag buñ jàppee tey jii kii di Bassirou Diomaye Faye te kàddu ñu ko jàppee ñu bëree bëri di xamle ne kat nekkut kàddu yoo xam ne kàddu yu ñagas la waaye itam ah, dañ ci profité ngir denc ko nëbb ko jant bi loolu nag nekk loo xam ne ah, sénégalais yëpp ñu ngi koy ñaawlu wala mbokk ñu leen jox dig dajee ci yeneen xibaar leen wax na ngeen abone te activé cloche de notification bi pour bépp vidéo bu ñu dugal ngeen bokk ci ñi koy njëkk a jot